سيد الرخاء والرجاء اللهم صل رسول الله على محمد سيد الرخاء والرجاء اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم fii man maa ngi fi nekk en 1972 la ñu créé FAO bi ñu ko defee 5 hectares la woon bi ñu paree bi ñu ko liggéeyee ba pare tubaab yi gis résultat ñu yokk si soixante quinze hectares boog ñu def extension bi dem nii sa bunta ba jëm nii ndinga la waaye bi nu ñëwee ba fii danu bëggoon xabaabal si ndingali bay si caw nii fii lañ leen yamloo fii lañ leen yamloo yam leen fii waa Cambérène yëpp taxaw coow li bari waaye ba nu mujjee booba tu ngi benn directeur bu ñu wax François fay waaye la nu mujjee

bi nga que euh, Baye Seydi tiaw ñewoon na fi amon ay ay pour jox FAO FAO bi mu dem domaine national xam nga terre ñu waye euh, euh, gouvernement sénégalais ak FAO dañu lu gouvernement gouvernement sénégalais jox terrain yi. FAO FAO recherche sur les cultures maraîchères ban ko fait fait résultat la sous-région

bi ñu gisee bâtiment yi nak ñu dal di koy sëkk nag pour yok fi mu ne gis nga sëkk na fi bo fi tok fi ma taxaw boko xolé da ngay wax sax du dex fekk dex la won fi ni waaw dex la won barax ba ngi ni non lañ koy pousser rek li ko pousser di def agression bi di dem ba mujj suñu sagane teen ba sa kaw sax te du koy mujj paare egg sa suuf ba kon nak ñun ñepp li ma leen wax nanu taxaw ba xamni li bu ñu bañ see ñàkk fayda ba taxaw ñu bañ ka ñak jërëjëf euh, góor gi. bisimilah rahmaani rahim man maa ngi tudd Ousseynou Diagne nekk euh, ingénieur en horticulture au niveau de l'IFAN di Laayeen nag ñu ngi ñaanal Baye Abdoulaye yàlla na fi yàgg lool te wér te am wér ku yaram di ko ñaanal kilifa diine yépp ñun nag sañu teewaay fii mooy ay doomu Laayeen lañu benn xam béréb bi muy ndingali ñun bi ma nekkee ci laboratoire botanique bu IFAN dañ fi daan ñëw ànd ak étudiant yi daan def herborisation herborisation moo jël ay garab. di leen def ci ay feuilles di ko wane ci wàllu gëstu bi pour la recherche fondamentale léegi nag ndingali xaalis tax na Ablaye Wade temps Baye Seydi Thiaw ma Baye Seydi caw moo joxe woon FAO FAO nekk centre de recherche horticole bu mag bi ñu demee ba ci biir lañ leen loo woon fële bi ñu demee ba ci biir nag léegi la ñu yokkaat lii yokk bi ñoo koy sëkk sëkk boobu nag mooy yàq ndingali ñun loolu la ñuy xeex xeex bi ñuy xeex mooy nañu arrêté sëkk bi respecté laayeen yi waaw ñun daal la ñuy xeex ñun. loolu la ñuy xeex. Euh, mais ci sëkk bi nga xamante ni ñu ngi koy sëkk euh, ndax dafay am effet boo xam ne moom lay def ci barab bi nga xam ne moom mooy teen bi ne foofu ak. Euh, espace bi nga xam ne moom la ñuy ziar li ñuy sëkk nii ay dex la dex nag defe naa ni gouvernement du attribuer dex gouvernement buy attribuer tool lay attribuer mais ñoom lii ñuy sëkk ay dex la sëkk bii ñu koy sëkk nag moo répercuté ci ndingali ba commencé yàq ndingali ñun loolu la ñuy xeex fi ñu toll nii. waaw nañu arrêté sëkk bi ku ci jox kayit yi nañu arrêté kayit yi vraiment ñu préserver laa ñu respecté laa ñu loolu mooy suñu combat ñun fi ñu toll nii. en tant que gëstukat ci wàllu garab gis nañ ne am na garab bu fi nekkoon à l'époque mu nekk benn baab bu mag euh, ñu xëy mu daanu est-ce que ñàkkul ne nap bi moo avancé pour lekk reen yi walla. waaw xam nga ku wax baobab wax ni guy. guy boo ko xoolee kooram presque quatre-vingt-dix pour cent yi ndox la léegi nag ñoom bi ñuy remblé fii di sëkk ndox moomu nag moo dem. xam nga nappe souterraine la di dox nag ba egg ndingal bi mu eggee nag nëbal reen bi mu nëbalee reen yi nag garab gi day déew doole ci la daano donc loolu moo ko waral koko yi ngay si yëpp remblai moo ko andi parce que koko aussi reenam bëggul saturation d'eau bu fekkee dafa saturé rek koko bi day néew doole dafay daal di dee moo tax gis koko yëpp daal di dee nii loolu moo ko waral kon euh, lan ngay euh, wax autorités yi nga xam ne ñoom ñoo autorisé pour ñu sëkk dex yi nga xam ne moom moo jigee palaasu laayeen yi nga xam ne moom mooy ndingale waa ci loolu aussi dama ciy gërëm maam Thierno Dieng l'ancien ministre de l'environnement vraiment maa ngi ko ciy gërëm di ko ci sant bu baax man bi ma ñëwee benn bis ndinga la doon fa ñëw comme laayeen yëpp di sangu si ñëw marqué Ben, marqué bu ñuul une semaine ñëw marqué bi dugg ci biir ndox mi ma xamni ni sëkk bi metti na ma taal sa moto ñëw fi bi ma ñëwee fii am ben xalé bu goor bu dëkk Cambéré ma fi dajal mom sax mom won place yépp bi ma paree ba jël sama téléphone wo ministre de l'environnement maam Thierno Dieng mu daal may fekk fi ñu daal di wër que gis ko biñ ko gisee mu ko ñu capitaine Dieye bu SOS environnement mu taxaw ci taxawaay bu rafet ci la maam Thierno Dieng xee fexe décret di classifier protéger zone bi mais protection bu ñu ko protéger gars ñu ngi jaay gars yi ngi waaw vraiment ñuy ñaan Macky mu taxaw ci ñu respecter aussi la communauté parce que mënuñu nekk fii jiitu fi ba pare ñu jël ba vraiment ñun dal li ñaan moy Macky Sall décision buñ fi jëlone nañ ko annuler bàyyi line li ñu moom ñu conserver ko ñun dal loolu la ñaan. mais euh, rappelé wu len fenn ñi sëkk dañ am autorisation bi wala dañ leen jox fi pour ñu sëkk ko. waaw ñoom ñi nga xamni dañ am autorisation moy ñi nekkon ci zone ISRA bi. zone CDH bi ñooñ Ablaye Wade moko déclassifier jël ko jox leen ko ñu def kay hangar mais li weesu ISRA bi jëm ni ken momako wa waa ñoko ñoo ko seen tool la waaw c'est du tool la amuñu ben keuyit parce que ñi ko doon def ñu ci bari goudi lañ kéran def. te man ñëw naa fi ba taay waa SOS environnement la gendarmerie ñu arrêté leen loolu moom am na moom mais nag kuy sàcc guddi mënoo chaque fois ngeen fi ñu leen kii ñun li ñu bëgg daal mooy état bi taxaw ci comme niñ ci taxawee rek indi ñu fi waa Eaux et Forêts ñu ngi nii i campement pour veiller ñun loolu la ñaan waaw. looy daal mooy ñun laay nañu veillé wu ci li nga xam ne ñoo ko moom te bañ a toog di seetaan nit ñi parce que bu ñu seetaanee aussi bu ñu ko xasee ba jël aussi cooway bari rek ñun loolu daal la ñuy ñaan ñun rasulullah ala muhammadin sayyidul arabi arabi wal ajam allahumma salli mustafa ala muhammadin sayyidul arabi wal ajam allahumma salli mustafa ala muhammadin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 moo ko sañcoon tudd ko kem Medine ba mu jógee ci nattu ba gore jaar kër Thierno Mbaye si la ànd fekk góor gi Thierno Sarr coom ba daje fekk àndaaleem ya bokkoon na nag ci àndaaleem ya guy gii nga xam ne tey jii daanu na ak teen bi nga xam ne moo fi des ak dégg nga bérébu jullikaayam bii guy gi nag bokk na ci li tax mu daanu woon ndox mi nga xam ne nit ñaa ngi sëkk dex gi dex gi di gën a avancé ba nëbal reenu guy gi ba guy gi mujj a daanu ndax nit sax bu dee naan ndox mu bon bu yàggee léegi mu dem àllaaxira kon guy gi daanu la te àndaale maam baylaay la woon kem saaba ya àndoon rek maam baylaay te jóge fi waaye nag teen bii nga xam ne tamit moom lañ fi dese muy sémbalu béréb bii nga xam ne béréb bu ñaanukaay la ñu gis ne euh, ci ay jamono mat na fanweeri at ak juróom wala mu ëpp ko suñu ñetteel bi di xalifa di bàyyi Seydi Thiaw Laay moom day dafa ñëw fekk tabax ba la ngeen seen ci sama ginnaaw muy waa CFAO mun leen yem leen ci mur bii ba mu leen fa yem loowee nag moom ndigal loolu mu joxewoon mel neen tey jii jalgati nañ ko ndax ñu ngi sëkk bay suñu diggante li ñu sëkk jëm ci teen bii ngeen di seen tiwil yu xonq yi loolu la daanaka deux cent mètres booy seet manqué na sax booy seet kon nag remblai boobu bu gënee ñëw dina altérer ndox mi nga xam ne mooy ndoxam li te maam li maamul Maadi alayhi salaatu wasalaam bi mu ko waxee day dana Ceerno Saar coom ñamal mu ñam mu nekk sifaa ngi noonu ndox mi di faj lu ne am nañ ci ay mandarga yu baree baree baree bare bare même man mii sax wax dëgg yàlla sama bët juróom fukki at ci ginnaaw ci jamonoy gerew ma policier dóoroon ma ci yàlla dogal na bi man jëlee ndox mi ñaan ci suñ borom ba wéral na ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaye béréb bi tamit béréb bu ñaanukaay la li ko symbolise woon mooy guy gi nga xam ne policier bu ngeen gis li nga xam ne moom la takk comme symbole ci dënn càmmañam guy gii moo ko symbolisé woon te loolu Seydina Maam Alassane Laye maam raan yàlla yàlla doole eleram moo ma ko waxtu boobu toogul xalifa konte nag tey guy googu tey bu daanoo nekk un symbole national tey ba teen bi commencé yenn saa yi ndox mi commencé di altéré wu ah kon nag lii nga xam ne sanctuaire la waruloon na naxasaay kon lépp li nga xam ne di mooy taarixu diina ji kon mooy mujj dem ndax l'islam bi am na junniy at ak ñeenti téeméer yu teg waaye ba tey jii boo demee Medinatu Munawara ca Makka di nga gis ñu naa la fii mooy jabalu óot Hamza ngi tëdd fii fii mooy nangam fii mooy nangam kon nag wane googu ñuy wane lu ëpp junni at ak ñeent téeméer at bu yonent bi dellu siwaatee jóge ci weex ñuul di maam limaam Mahdi alayhi salaatu wasalaam war nañoo mën a wan ay mandarga nit ñi te bu ñu fàtte na fii la defe defee ñaan gi nga xam ne gi moo fay deuxième guerre mondiale bi ndakaaru takkee waaye fii tamit suñ digganteeg Mauritanie en avril 1989 fii la Nabila Issa Rouhou Laye feeñu benn doomu aadama bu ñu wax soxna soosu Seck yóbbante ko ci Seydina maam Alassane Laye maam ñu ñëw fii ñaan fi ci bés boobu la rey yi arrêté ci Sénégal ak ci Mauritanie kon bérébu ñaanukaay la ndox mi tamit sifaale day faj lu ne ñi fii ñëw te duñu laayeen bari nañu mag mii fi nekk nag yàlla na ko fi yàlla yàggal nga xam ne macha allah quatre-vingt-quinze ans tey jii am na ko di sonn ci àll bi waaye ñun ñal lan moo taxoon Baye Seydi Thiaw daan fi ñëw ñetti weer jot ànd fekk diina jépp ànd fekk ay rakam Seydina Mahamad Sallaay maam raan ànd fekk Serigne Ablaye Thiaw mi doon porte parole te tey jii mu toog ci jal bi yàlla na fi yàgg ànd ak imam Bachir ak seen i rakk ñu di fi ñëw di yéeg ci montagne bi di ziar béréb bi ah Serigne Ablaye lan moo tax bu masaan saan jógee yoof tabaski war a dem këram fii la nekk ak tengaa dem yendu fi ñu ñëw di fi ziar kon nag nit ku nekk dafay fonk la mu moom tan nag wax dëgg yàlla gouvernement bi ñu ngi sàkku ci monsieur le président de la république décret bi nga xam ne bii joxe na ndigal pour ñu arrêter, yenn avez ñu def wax deug yalla ñi nga xamni ñi ñom la tek ci béréb yi moo xam euh, préfecture la mo xam ministère de euh, de de l'environnement la mo xam wa forêt la en tout cas war nañu veiller à ce que li nga xamni mo fi dess comme poumon vert parce que c'est pas pour rien conseil des ministres du 15 juillet 2020 président di fàttali nit ñi ne len zone bi nga à la pression foncière bi la zone des ñaay à part ça la forêt de Mbaou, ak liñ fi muy sur la côtière depuis 1948 pour freiner l'avancée des dunes heureusement que les sax VDN bi ñëw na à part ça le parc de Anne bi créé en 1903 te transformé en parc zoologique à partir de 1935. waaw ndax at moomu sax der ci la fi euh, segg gi rëcce woon be fekk fii njabootu yonent Aliou Sarr Rawlaay ci tool yi mel ni muus boof waaye tubaab yooyu ki ñuy wax Merlin ba mu ñëwee pour bëgg ko fital keroog segg gi lu gaaw gaaw song na ko ba gaañ ko il a fallu que moroom ma moo ko tàqaleeg moom tiri ci kawam. waa kon nag fii mbir la boo xam ne bii c'est un sanctuaire ñun nag mag ñi dem nañu yàlla dogal na ñun la yàlla nattoo ñu fekk fii des ba nag yàlla nañ fi yàgg moo tax kon béréb bii ñu ngi ñaan suñu borom bu subxanahu wa taala mu dollu ñu ko aaral ñoŋal ñu ko ndax bàyyi laay kat bi mag ñi jógee Gànjool jógee Waalo jógee feneen ak Kajoor fii la leen joxoon ay tool ñu fiy bay ñoo ñu nga xam ne ñoo ko doon bay nag ba tey jii seeni doom mbaa seen i ñu ngi fi. Nous wax deug yalla bu yalla dogalé ñu xam daan def comme seen mam loolu ba ay alkhari way dal ñu ngi ñaan préserver ndax am am une verdure bokk ci oxygène di dimbal nit ñi ak timi yi nga di euh, Gambie waaw muy des ñuy par exemple héron euh, garde-bœuf di ni sàmm ñëpp xam nañ loolu piton yaa fi ak érondre yi maa ñu ngi fi yëpp a ngi fi euh, kon nidification zone de nidification la waaye également zone d'épuration la mais également zone bu oxygénée pour la santé de l'homme mo nekk ci zone bi c'est la verdure comme dans les tous les grands pays du monde wa kon dal lolu la amone lu may wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ndax. ku si doy sa naa ku yàllay baaxee ngay doon waaye adduna du ci noppalu ma loolu yow nii nga analysé li nga fi waaye bu fi ñu indi fi loo xam ne lii lu ma noppal la fii aw xob ku jël tegal ma fale dimbali nga ma waxuma li yàq ليقلب يجيني يوم خيخنا دمنا في أي جد كنا في أي باب دمنا في فار يلا بجملي بنجمل مومو ما يدخ بغنيو تكي سبت أناليسوكو يلا لا يلا دوليل باركيل تمبرمي آمين ba lépp lu yàq bu sori du barke ci mbay loon may jërëjëf waaw waaw sant mm, naa la bu baax ndax mënatuma dem tase yo mm-hmm. juróom-ñeent fukki at mm-hmm. ah mm-hmm. juróom-ñaar ñii lay tooge ba jant bu ma demee damay toog ba minuit lu ko gën a métti ah kenn nag jublu kenn miire jëmmi ñépp kenn waxul dara dim ci man loolu yow yal na yàlla dooleel la te barkeel sa wax bi ba mu tas ba lépp lu yàq sooy do barkeel na mu ngoog rasulallah yàlla lu toll ni sa xam-xam yàlla lu toll ni sa man-man julli ci mbindeef yaa rasulallah sayyiduna muhammad sayyidul kawnayni was saxalayni al wari xayni min qurbin wa min najamin oh.